suñu tàmbalee jëfe bi dogal bépp fruit buy dugg ndakaaru war na jaar sa marché international bu Diamniadio mu bawoo port autonome wala gox yi nekk ci biir réew mi wala sax aéroport international Blaise Diagne décharge bi moom foofe rek lañ koy defee xibaar bi jaaykat yi nekk fii ci Sandiniéry yi yëg nañu ko ñëpp a ngi na xuntu ci gis-gisu kiy jiite bile marché yëfi sa xel mënu ko nangu. te marché bi prix bi ñuy facturer marché bi foofu moo gën a sori benn. frais yi bëri na te marché boobu zone 3 la ne nekkul zone ba ci pris transport conteneur yi day wute tey boo doon fay fii tey cent vingt cinq mille francs léegi pour nga jëlee ko fii yóbbu ko ba jam ñaajo tu vas payer presque dans les trois cent mille mbir mi fa mu ñuy jëmee mooy yokkute si njëgu fruits yi parce que mënoo indi bagage mu dikkee la dix mille francs mu taxaw dix mille nga jaay ko dix mille te nga am ay charge nga am ay employés yi ngay fay ngay fay TVA di fay euh, taxe lépp yu war. jaaykat yi nekk Sandiniéry yi ñoo ngi xaarandi sax ñàkk lu bëri ci seeni fruits ndax am na say xeetu fruits yoo xam ne kenn waru leen di toxal lu bëri wala rek ñu yàqu ci say loxo. comme kaki kiwi prune raisin poire cerise litchi yooyu yëpp bëgguñu ay déplacement yu bëri. li leen gën a metti ñoom jaaykat yi nekk fii ci Sandiniéry yi. moo di ne bu Ndakaaru ba muy waxtaan boolewu leen si ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey si fruits yi li muy ñax nag kilifa yi mooy ñu xolaat la dogal laata ñu koy jëfee mu di dogal boo xam ne sàkkuteef bi du lenn lu dul fexe ba benn gros porteur di camion dootul fattati xàlli Ndakaaru yi bëgg nañu it gën a dooleel marché d'intérêt national bu jam ñaajo